Aí. الحول مسير يسير بي الجسد الذي خالق voilà mboo koy xarit yi toujours ñoo ngi ci programme li nga xamante ni moom mooy màggal de Touba euh, ñoo ngi fi nga xamante ni moom mooy jannatu donc xam naa euh, dañuy dugg rek ci ñi nga xamante ni tamit ñoom ñooy toogukat yi di yëkk di jox ñi nga xam di joxe li nga xamante ni ñoom ñooy moom mooy bernde yi ndax bu ñu waxee màggal Touba rek li ñuy njëkk a xalaat moom mooy bernde ndax Serigne Touba euh, ndax Serigne Touba dafa ne ñu santale ko yàlla ci li nga xamante ni nii moom mooy bés bi xeebul dara nañ ko commencé ci ginaar ba ci gëlëm yaakaar naa ne su ma ci ay kaddu ndax waxal ku teddu tukki euh, lu jafe la euh, donc dañuy daldi nak euh, ma ñëw fi ci wañ bi nag fekk ki nga xamanteni mom moy mooy Ndiaga l'animateur de tous les temps donc Ndiaga euh yaangi ni nek ci waañ bi Ndiaga lu fi xew. Jërin Moussa ñu ngi lay xaar bax di la bëggee di am tawfeex gu wër fi ñu fekk ni mom moy jannatu kër sëñ Mohamed Mbacke le futur sëñ Mohamed Mbaké. di seetu sëñ Mountakha Mbaké. Euh, doon jàmbaar loolu fii nag moom mooy jannatu fi nga xamante ni ay taalibeem chaque année fii la ñuy dal gis nga taalibe yi bi tàmbali nañ yegg si euh, suba moo des ci màggal gi euh, ñu ngi ci waañ bi di tàmbali berndel jaam ñi gis nga roof bi la ñu nekkoon nii ah dag maa fekkoon ci roof bi nii xam nga man liggéeyal sëñ bi rek ma ñor man kenn ñor ma ku dul sëñ Bamba waaw moo tax ci roof gi moo fekkoon nii xam naa ni kon ko maa wi miin waañ bi nga dénk ma micro bi pour ma dégg jox ko jaam ñi xanaa tur bi daf may topp rek euh, Ndiaga tur bi xam dama lay bàyyi rek nga topp Ndiaga euh, moom moo nekk ci waañ bi euh, mu woon la li nga xamante ni moom lañ koy waajalee Ndiaga donc ma bàyyi ak micro bi nga wéyal ci waañ bi. amul benn problème dégg nga ku ma dénk l'animateur de tous les temps ko dégg non bàyyi ma jox ko sama yaay ji moom mu teel ma moom moo nekk ci wàllum roof gi. Hmm? gis nga xam nga màggal gi boo ñëwee ku nekk ak pàcc bi mu yor. ñii ñu ngi ci café gi ñii ñu ngi ci xolli soble bi ñii ñu ngi ci roof bi ñii ñu ngi ci sabatit bi euh, sama sama xarit moom moo nekk ci euh, ci ci sabatit bi euh, ci ci roof bi hmm? ci bi laa nekkoon ak moom ni sax parce que moom moo doon wan nañuy roofee parce que masuma roof ba ma dana ñëw Touba ba laa daan nekk waaye tey ci roof gi laa nekk yaay booy ñu ngi noo noo dundee tey euh, li nga xamante ni jour ji mooy euh, moom moo ci des suba nekk li nga xamante ni moom mooy màggal gi euh, gan yi instant bi tàmbali nañ ñëw fii nga xamante ni moom mooy màkkaanu sëñ Mouhamed Mbacke mm-hmm. waaw xanaa am si kontaante rek ak euh, sant bu baax si teewe bi ñu ko teewee ndax sama genre gi nii ñoom daaw ñëwuñu fi woon ren moom ñu am mbégte bu baax si teewe bi ñu fi teewee sëñ bi moom jar na lu nekk moom waaw moom borom baax la ku yaatu la ku ñëw mu yaatal la waaw moom moom ku ñëw mu yaatal la borom baax la. lan ngay doog ñëw fii. non mus naa fi ñëw daaw jéeg waaw man sama doom moom lañ ko tuddee sax sama taaw Mouhamed Bachir. waaw ñoo àndoon mais ren indiwu ma ko man rek maa ñëw mës nañ fi ànd alaaji mi ngi fi mi si jaam xam naa léegi mu ñëw sax soxna jibi ku ngoog naa <laughs> jeex na mi ngi noonu bokk coxo mu ngi noonu yow kon ku baax ku ta man magu Moussa Diop laa xaritu jibi ah sama rak la Moussa sama xarit la ñu ngi déggante sax ñu ngi déggante sax sama xarit la waaw waaw Mouhamed moo waral lépp waaw mi ngi noonu ku yaatu kenn du moom amul morom nii moom bësam nii dalam nii rek la mën a mel donc dalam nii rek la mën a mel bokk booloo doon benn amee ku bokk ku jugee fee ak ku jugee fële waaw moom ñëpp la boole rek boole def leen def leen benn waaw moom borom baax la borom yitte la borom yëg-yëg la. ngi noonu dégg suñu yaay ji kàddu yi mu yëkkati euh, kenn du sëñ Mouhamed Mbacke la futur moom euh, moo njaboote jaam ñi euh, fu ne la wa jaam ñi di jógee parce que ku ko gis rek sopp ko ku ko gis bëgg ko dikkal nga topp ma gis nga ñu ngi nii ñu ngi ñu ngi tey li nga xamante ni moom mooy ceeb bi soxna Aram maa ngi lay siyaare rek Ba Ndiaga maa ngi delloo ziar. yaa ngi ci tàngaay bi waaye dara dara dara dara jarul la ko lu dul màggal gi rek ak jitey sëñ bi rek. baax sëñ Tuuba waaw moom. nga am pasteef lool mu am pasteef lool ci ci ci ci kuréel gi ak ci daayira bi moom soxna Aram borom Kaolack ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. waaw ñu ngi delloo ziar yaa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar waa di leen ndokkeel ci bés bi tamit waaw di leen wax ne bisimilah. dal jàmm waaw dal jàmm ci liggéey bi. loo yow loo gérer nii fii nii instant bi. fii ñun ñu ngi ci lépp waaw man maa ngi man maa ngi ci lépp waaw waaw maa ngi ci lépp voilà loolu la loolu la loolu la maa ngi ci lépp. gars yi daal ñu ngi ñëw. waaw ñu ngi ñëw macha allah. Hmm. waaw ñu ngi ñëw macha allah. kon léegi léegi. yow yow après xam naa ni moom chaque année mooy def bu sëñ bi defee discours arabe ba pare moo koy def euh, français waaw moom intel intellectuel la haut niveau moom li muy li muy génne dafa yéeme waaw gis nga gaa yaa ci tay bi jëwriñ Mouhamed a ngi nii euh, euh, jëwriñ. ki tooyalal mu tay cin bi waaw moom dara ñoru ko ku dul sëñ bi sëñ ko ñor moom yi yi tey bi rek ko ñor jëwriñ. ñu ngi lay siyaare. yal na yàlla nangu ziyaate booleel ñu yool na moom wax dëgg fa yàgg bi lan la mbégte ak kontaante bu rëy rëy rëy di ñaan yàlla ñu yàgg ko teewe yàgg àndal liggéey bi sëñ Mouhamed nga xam ne mooy sunu sëriñ di sunu sang di sunu xarit yàgg ñu jiite liggéey bi waaw sant nañ bu baax nag si niñ ko teewee waaw. dégg nga daal kontaan bu rëy. na fi yàgg amin amin amin mbàkke nañ ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak sëñ Touba. sa waaj lépp yow waaw sunu waaj sunu waaj. yow xam nga lépp. <laughs> xam nañu lépp bisimilah <laughs> euh, sama jëriñ. maa ngi lay siyaare Baye Ndiaga bi ma dégg la micro bi ngay wax nekkal aja Baye Ndiaga baa yaa ngi am taw ñu sant bu baax kay sant ko yoon bi baa métti non waaw xaw na métti na mais sant la tawfeex la ndax ñi euh, li waroon demee daal ndax ku tedd gi li mu am yombul woon kon nag méttiwaay bi ak tan la ci ñun waaw kon daanaka yëguñu ko daanaka instant yi wax dëgg yàlla ñu li ñu yëg mooy mbégte loolu bi nii waaw nekk ci liggéey bi nekk di tey nii pour waajal mbokk taalibe waaw lépp daal ngir gi faal waaw ñu daal màggal gi rek mooy mooy suñu té comme ñu ko ñu ko suñ bi digle woon ca la nekk ànd ak waa daar ahlu idaa dawal xidma ak suñu sëriñ sëriñ mu yàgg loolu te a wér ak maam ji baax ji sëriñ Mountakha mbokk taalibe yëpp ak kilifa yëpp waaw di xamal ni bu baax dak waaw ndax fii li fi am ah ak cant na faal bég de waaw dañ leen lool sax wallaahi wallaahi waaw ndax ko gis gars yi waaw ku gis gars yi ah, xam ne macha allah waaw wallaahi baax sëriñ Tuubaa wallaahi moom tamit mu nekk xale ba nag bëgg lu baax xam lu baax jaat yoon bu baax boo xam ne ni koo gis rek da nga da nga ko naw pour mën a ànd ak moom Mbàkke Bàlla yàgg loolu di gën a wér waaw sant nañ baax daal baax faal billaahi jaajëf mu ngi noonu euh, euh, gaa yaa ngi ci waañ bi gis nga bërki démb euh, ba ñu ko fekkee kër maamam bi kër sëñ Muntaxa moom sëñ Mouhamed Mbacke fa la ñu ko fekk hmm? waaye mënta ñàkk gaa yi il ñu sànni ci kàddu hmm? sama fil bu lakkee nag garaawul lépp ci màggal gi la hmm? sama sama sama rakk la il foog mu sànni ci kàddu loo loo yëg màggal loo yëg mbégte rek xanaa mhm. ah fi mu egg foor na de. Mm. amul mm. mm-hmm. daal bu baax yokkute daal. bu baax sax. yaa ngi dund màggal gi daal. waaw. Eh, aja màggal moom moom dafa dafa timide ndeysaan eh, mu ngi noonu eh, nii la ñuy àndandoo ak yéen fii ba màggal gi lépp loo xamante ni am na fii kër sëñ Mouhamed Mbacké le futur dinañ leen ko dégtal yéen ñi nga xam ne yéenay suivre la Dakar waa 221 jërëjëf Moussa fekk na ma ci cuisine bi wax loo ma ñu dem ci ñi di ñi di xolli soble bi il faut ma dem ci ñoom topp ma ah, sama sama sama jigéen sama xarit non il faut nga sànni ci kàddu kaay tournel nii tournel tournel kenn du moom booy wër ak yaay faal ak ku am taalibe bay ba yegsi ci moom jël ko maa ngi lay xaar loo wax ak gan yi teew nii boobu ba léegi yaa ngi ci yitey gan yi màggal gi ba mu dese ay fan ba léegi yaa ngi ci yitey gan gi ah sant rek ak kontaan wax dëgg yàlla ndax amuñu ko dul Serigne Touba nit ñu ñëpp ñëw si yow mbekté dong la ci andad billahi waaw waaw. trop sax. timit nak bu len koko jappé mom ñu la mel. waaw baye baye la nga dellu yow xamna naa mëno ay wax baye ma waxal la. lo yëgee euh, yor-yoru nga xamanteni yor-yoru magal gi parce que suba la magal gi hmm, euh, tay gan yi ñëw nañ yéen gi ngi ci xolli sobla bi ban yëg-yëg ngeen ci am. ah xana contane rek di sante señ bi bu baaxa baax ndax li yépp mom la waaw ñu ngi kay waaj nak suba mom ñu ngi koy pare. Mhm sama paregan gue ya, pare. Ah. Cikot aja iya, bu. Mhm. Lu sen jeda pare. Bari na. ben? Yi, mënuma mau lim. Dafa bari. wow lo harus rek amna lu dess. Lo wax rek amna lu Mhm. Aja jadi sa. Eh, bismillah, dikal ma delaat la sa micro man delu ci liggéey ba kon nga ñew nga forcer ma micro bi. Hmm? Euh ñewul. Jeurum sa. nga ya ma fekk ci wañ ba denk ma micro bi. defal naa la dugal naa la ci ruq-ruqaat yi eh, am mbégte loolu waaw am mbégte loolu waaw waaw waaw waaw nga jox ma eh, liggéey bi man liggéey sëñ bi rek ma ñor gërëm nañ ñëpp ñu ngi doon seetaan ayca lay tagato voilà euh, comme ni ngeen ko ni mu ko defaree rek euh, mom jaga job l'animateur de tous les temps euh, donc li lancement bi la avec, film bi ñëwagul li nga xamanteni mom moy mooy bobu Touba bi donc lancement bi la avec, film bi ñëwagul tay mom moy veyu magal bi gis ngeen donc Ndiaga duggal na leen ci wañ bi xolal leen lepp lo xamanteni ni mom la gan yi nekk di def actuellement di waajal li nga xamanteni mom moy mooy bemdey ndax lu am am solo ci magalu Touba bi donc dañ leen di bàyyi rek ñu di sur le programme de Dakar Wa 221 d'ici là portez-vous bien ngeen dund mbégte bu baax wax ci màggal bi wax ci kanam حول مسير يسير بأن تسكن الذي خالق